salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen chaire bu baax tey jii nag ñu am yéene pour waxtaanee lenn ci li nga xamante ni wax dëgg yàlla lu sonal sénégalais yi la lu sonal askan bi la. yeen nag waa télévision bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci ñëw bi ngeen ñëw fii di ñu laaj ñoo ngi leen di déglu ci lépp lu ngeen ñu laaj rek incha allahu rabbi ci feebar bii ngeen wax ni moom ngeen am yéene pour waxtaanee ko muy feebaru mauvaise haleine ñoo ngi leen ci déglu. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جرجف سرين توبا جراو لك مام شيخ إبراهيم فال لام جرجف مامران واو ديفينيسيون موفيز الين موم موي اليتوز موي خيتو گيمين بيغا خامني نيكي نيكو وور ولا انتوراجام دنج كاي فارال دي سانتير دي لي خامتيني دال دا فاي اندي خيت بيغا خامتيني دال دو موي اي انفيكسيون بيكو دانتير لولو انفيكسيون بيكو دانتير نك بولين كاي ديغي مون نا اي infection wala ay bactéries wala ay microbes yi nga xamante ne nit ki da koy am ci gémminam ci plaque dentaire yi ak surtout ci infection yoo xamante ni dafay nekk ci biiram wala infection yoo xam ne dafay nekk ci put bi loolu nag euh, la majorité ci ñi nga xamante ne dañuy am mauvaise haleine bu nga xamante ni bu ñu demee hôpital mën nañ leen sax def loo fibroscopie pour ñu mën a xam infection yooyu fan la nekk ci ñoom ñu bëri ci ñoom it dañuy dem ci hôpital dem ci dentiste yi jaar fu baree bare bare bare bëri waaye il faut qu'un spécialiste en ça te itim dafa laaj un traitement bi nga xamante ni général parce que mauvaise haleine dafa nekk feebar bu yaatu feebar bu yaatoo yaatoo yaatu yaatu li ko mën waral ci nit dafa bari lool te xam naa ne ci biir émission bi boole ñu dégloo ngeen teewlu ko di ngeen mën a comprendre lan moo koy waral dëgg dëgg dëgg dëgg ci doomu aadama. waaw jërëjëf Mamran euh, mauvaise haleine nag dafa bari trop ay forme comme ni ma ko waxee léegi ñenn ñi seen mauvaise haleine ci gémmiñ gi lay jóge ñenn ñi seen mauvaise haleine ci put bi lay jóge mën nañu am dal am na ñoo xam ne dañu am enjume ci put bi am na ci ñoo dañu am ay grain yu nekk ci biir put bi bu ñu yeewoo ko buñ ko génnee dañuy génne ay grain yu weex tàll buñ ko tojee muy mel ne ay doomi ceeb buñ ko tojee muy am xet bi nga xamante ne daal ñoom seen bopp sax du leen neex te yooyu buñ ko gisee ay infection la maanaam dajale na ay bactéries yu bëri ci ñoom ndax am na ñoo dañu am poche fii buñ fa lekkee lekk bi dana fa des ñaari fan ba ñetti fan lekk boobu day dem bëri day nëpp di am xet am dañu am ulcère am ñoo xam dañu am estomac am ñoo xamante ni dañu am reflux gastrique œsophagien am ñi nga xamante ni itam dañu am hémorroïde ndoxum siti loolu yëpp dafa bokk ci forme yi nga xamante ni dafay provoquer mauvaise haleine maanaam fu mu mën a jóge ci nit bari na am na ñoo xam te ne xet googu day dem ba nekk seen yaram maanaam day nekk ci seen pokataan bu ñu sangoo sax quelques minutes après rek bu ñu ñaqee xet bi day xeeñ seen suufu tànk ñoo xam te ni seen diggante tànk yi ci suuf dañuy gis ni day retax day xóoñ day am xet moom it kon xet dafa nekk li nga xamante ni ci nit lu doy waar la da ngay déranger nit ñu bare bare bare bare te nit ñooñu am mauvaise haleine ñenn ñi xam nañ ko ñi ci des xamuñu ko te ñenn ñi sax dañ leen koy dem ba di leen ko jànnee wala den leen ko jëwee wala di leen waxee am na xam te am feebar duñ ko xam mais nit ñi dañ leen koy xoole te duñ leen ko wax te loolu yëpp dafa nekk ci li nga xam ni lu ñuy faral di gis la allo salaamaaleykum waaw Serigne Lamine Bara Fall waaw man la Ibra man la Ibra laay dëkk Cambérène waaw traitement Mouride Alam bi kontaan naa ci de kontaan naa ci bu baax a baax baax parce que sonoon sonoon naa trop trop trop sama biir bi da doon jooy mënatumaa dem ci xew yi mënatumaa dem si ngénte yi man wax dëgg yàlla daal suñ bi kontaan naa bu baax a baax Mouride Alam bi sonal na ma trop trop trop trop sama biir bi da doon jooy ak lépp léegi lépp macha allah sëñ bi maa ngi lay sant bu baax a baax mu yàggal taxawaay bu baax a a baax Mawees Alam bi daal sëñ bi solo na solo loon la ma lool lool lool lool waa ji mënatu maa na dem fenn fenn fenn kër gi sax mënu ma ko a génn wax dëgg yàlla mais instant daal sant naa bu baax a baax sama biir bi da daan jooy itam sama biir bi da daan jooy sëñ bi mënu maa mënu maa na dem fenn wax dëgg sant naa bu baax de jërëjëf mënu maa wax sax jërëjëf sëñ bi. waaw Mame Rane loolu moom. lu neex a xam la ndax. kenn ku ci nekk xam nga sa bopp waaye ku ñëw def consultation ci suñu cabinet ñun niñ koy xamee bu dee ñun la exactement dañuy poser une consultation def une bonne diagnostic bu ñu poser consultation boobu def diagnostic bi ci la ñu mën a xam lan moo mën a indi gàllankoor boobu ci nit def consultation bi def diagnostic bi am na ay petit travail ñu lay def loo am na ay exercice ñu lay def loo nga ngaan ñu identifier ko ba xam ni réellement euh, mauvaise haleine ñaareelu mbir boobu bu ñu jógee ci loolu itam ñu xam ba xam fan la mauvaise haleine bi mën a jóge ci moom bu ko defee bu ñu def euh, traitement bi ça nous permettra ñu xam exact fan la nekk waaw jërëjëf membran ci wàllu wàllante nag wàllu contamination ak mauvaise haleine am na ndax wax nañu ni am na infection yi nit di am ci gémminam wala infection yi nit di am ci yaramam yi nga xamante ni mën na wàllante ndax feebar yi am nañu yenn nit ñi nga xamante ne bu ñu amul yenn hygiène de yi ci seen bëñ wala seen i gémmiñ duñ ko toppatoo bu baax nag ma baal ci kàddu gi buñ la foonee sax le fait que ñuy fóonante boobu rek mën na la wàll feebar bu ñu wax feebaru mauvaise haleine kon nag am na bactéries yi nga xamante ne bu la ko transmettre rek mën na dem ba yooyu bactéries yooyu day day placé wu ci say plaque dentaire day dugg ci say diggante bëñ te mën na dem bay lakk sa bëñ xalal sa bëñ sa bëñ day dem ba jaune wala sa bëñ day dem ba xonq cur wala ci yenn ndox yi ñuy naan échangeante yenn ndox yi dafay nekk li xam te ne dafay mën a wàllante mauvaise haleine waaw jërëjëf Membrane waaw mauvaise haleine moom ni muy manifesté woo euh, xet bu naqadi rek di wax ak ay nit nit ñooñu di dem dëmmooyu di la wan ginnaaw ngay wax ak nit muy tëfli nga wax ak nit nga sentir ni nit yaa ngi koy déranger mu jël yéreem taf ci bakkanam wala taf ci gémminam nga xam ni kii vraiment euh, am na odeur buy manifesté wu dafay dem ba yàq seen àddina dootuñu mën dem ci xew dootuñu mën dem ci mbooloo ñenn ñi yàq na seen sëy ñi yàq na sax seen liggéey am ñoom tamit dañu amoon relation lool ak doomu aadama yi di nekk nit ñi di jaay di business nekk ak doomu aadama yi ñi bëgg leen ñu bëgg leen mais dem na ba mënatuñoo ñeme sax dugg ci biir nit ñi fu ñu toog rek xet bi dafa leen di déranger dañ koy sentir am na ci ñenn ñi xam te ne sax dañuy dem ba ci barabu hôpital yi wala yenn structures yi mais dañ leen di jàppee dof dañ naan yow rek yaa koy xencu te fekk dafa laaj une diagnostic dafa laaj une bonne diagnostic bi nga xamante ni yow aji fajkat bi soo amul temps malade amoo ci moom yërmande toogoo dégluwoo ko wala malade bi malade dafay bëgg di wax rek te du def consultation bu approfondie parce que yenn feebar yi boo ko amee pour mu am résultat il faut faire une bonne diagnostic nga xam te ne dafay approfondi ndax diagnostic bi soo ko approfondiree li la war yow malade bi def ko kii fajit li ko war mu def ko kenn ku ci nekk da nga am sa waar fajkat bi dafa war a déglu malaatam malade bi itam warul def automédication maanaam déglu jël garab bi baax na barab baax il faut ngeen seet ay spécialistes ñi nga xamante ni seen xam-xam dafa màcc ci loolu malade bu nekk wala façon malade bu nekk ñun gis nañ ko on a beaucoup beaucoup beaucoup d'expérience à ça te képp kuñ ko jox traitement bi itam traitement général complet lañ lay jox yàlla defal la ci tawféex ci kàttanu yàlla. salaamaaleykum sëñ bi du li ngeen ne mbaa yéen a ngi si jàmm bu baax ma ngi nuyu di leen jaar lu bëree bëri leen ñaanal jàmm te di ko sàkku si yéen. dama déggoon sa publicité si télé bi si laa jëlee woon sa numéro pour affaire mauvaise haleine yi man daal def ma sonal trop wax dëgg yàlla jaaxle naa fu ne dugg naa fa boros ak euh, façon boros bu ne pat bu ne jënd naa ko bain de bouche ak lépp alhamdulilah sant yàlla. sonnoon naa de lu ma doon dund ay at mauvaise haleine mu ma witt witt witt billaahi dem naa ba mel na ku dof sax su ma seeni ni balaa may egsi si man laa koy nuyu mënuma sama yitte yépp laa daggoon wallaahi azim sonnoon laa def fu ne dem naa fa li ma jënd si ay bain de bouche pat buñ ne baax na pharmacie ma jënd lu ne laa la wax wallaahi ngeer sax lu ne luñ na baax na rek ma baaxal sax di ko def ay bain de ak lu ne waaye mauvaise haleine ni fi ñu toll nii de alhamdulilah sant yàlla ba balaa may ñëw si yow sax sama jëkkër butéel bu man ma indil bi ma naan butéel ba muy bëgg a jeex bu mel ne daa gën a yokk wóor na yàlla ma découragé si laa doog a xool ma ne amoon naa sa numéro jëloon naa ko xaaral ma xool la waaye wax dëgg yàlla yàlla jàppale ñu sant yàlla billahi maa ngi waxante nit normal fi ñu toll gëmewuma ko sax nag wallaahi gëmewuma ko ndax dafa nekk lu métti métti ci ko xalaat bu baax sax waaye sant yàlla yàlla leen yàlla jàppale daal yàlla na leen yàlla fay gën a wéral cëri kontaan naa nekk leen si jàmm ju bari jërëjëf. waaw jërëjëf Mame Rane euh, wàllu mauvaise haleine moom amul mag amul ndaw amul jigéen ku nekk mën na laa dal nit day am doom sax di xeeñ ci xetu gémmiñu doomam mais daf ci sentir xet bare na ñu mu dal lool man mi tout le temps dama koy dég yaay bu ma woo ni ma man de sama doom xetu gémminam neexul ñenn ñi nag parfois nattu yàlla la ñenn ñi itim ñàkk toppatoo ci seen bopp ndax boo nekkee xale itim doo brosse bañ normalement day yak sa bañ sa bañ day dem ba day jaune day xal day dem ba tek beur ñi xamanteni duñu soccu duñu bros seen bañ ndax am na ñoo xam sax rab ak ngelaw sheytane mo leen ko def ñen ñi itim liggey ndax nit dina nek ci barab di liggey wax deug yalla nit ñi bëgg ko jublu ko mais day na war am ñoo xam lay yóbbu ci sëriñ sané la nga xamni ñi la jublu won ñëppay dëdd won la ginaaw à tout moment fo tok sa yaram day xéñ te loolu itim nek na li nga xamanteni baxul loolu itim yépp maam dafa nek li nga xamanteni lu nit ñi di dund ndax buñ ko waxulit ki tok diñu sétante gis ci bopam du ci xam dara te du xam sax fan la jëm kon ñun exactement loolu lañ ci jublu pour informer pour sensibiliser pour dimbali itam ñenn ñi nga xamante ni dañu soxla ndimbal waaw ndax ñëpp yemuñu bu yàpp yëpp yemee ne res yéen yàpp yi paaka du ci am yoon. waaw jërëjëf mamran Rane laaj bi nga laaj am na solo muy wàllu nit ku woor ak mauvaise haleine waaw am na ñi nga xamante ni euh, am xetu gémmiñ tax na mënuñu woor wala am xetu gémmiñ dafay yàq seen koor dañu dem ba ni ñoom est-ce que sax seen koor baaxati na parce que dañuy xëdd mais li ñu xëddee yépp seen estomac lay nekk toute la longueur du journée à tout moment dañuy géex à tout moment dañuy yokol à tout moment dañuy am ay reflux gastrique sen ñam du res fay nek lu yegg di wacc am ñam tane sax day taxaw ci sen put bi fii loolu yëpp dafa nek ci li nga xamante ni mooy dañ koy xencu ba ci sen bakan kon ramadan ak euh, mauvaise haleine lu lu lu am importance la ñen ñu bëri bëri bëri bëri bëri bëri yalla xamna ni sen koor dañuy sax tit ni est ce que sax sen koor baxati na ñen ñu bëri ñu sax jëmatu wor dañ ko jëma sax bayyi kon nak occasion la pour wàllu ramadan ak euh, mauvaise haleine képp ku ñu ci yàlla boole. incha allah rabbi danañ la ci dimbali. Lamine Bara Fall ziar naa la ziar naa la bu wér a wér a wér man la Ndeye Seck xam naa di ma fàtte de man la cousine mami bi mami Diop si Kab Mbaaw man la fa mami Diop indi indi woon pour nga fajal ma problème mu mauvaise haleine bi affaire yi maa traitement bi. di jéggul si gëj a déggante bi de dama nekkatu si kaam nag Kaolack laay sëy moo tax nga gëj maa dégg maa ngi sëy Kaolack dafa fàttalikoo si kooru daaw lu tombé loon kooru daaw bu la wax naan man lii est ce que dinaa sax bëgguma koo am <laughs> ndeysaan nga ñaanal mu naan ma bu neexee yàlla kooru déwén di nga am koo taajal ndog suñu borom nangu sa ñaan de dëgg yàlla naa suñu borom nangu na sa ñaan dëgg yàlla maa ngi nii Kaolack laay sëy moo tax sax nga gëj maa gis foofu mais moom traitement bi moom wax dëgg yàlla macha allah dam lay sant di la gërëm ndaxte métitu biir bi moo ma gënoon sonal sax que sama mauvaise haleine bi métitu biir bi mais depuis nga may jox garab yi may naan def traitement bi normal ak surtout paj yeeg yooyu sax wax dëgg yàlla moom gis naa si tan bu baax a baax mais incha allah nii maa ngi nii kaw ndaxte dama nekk nii en sax dama nekk jigéen bu wéru mais bis bu ma yàlla may omi sedd moom ba mu ñëwaat Sicap ba mu ñëw Dakar bu neexee yàlla dinaa def la tout ba ñëw fa incha allah bu mu fàtte si ñaan jërëjëf Faye jéggul nag si gëj a déggante bi di bu wér a a ñaan ngeen nangu nag xam nga jëkkër rek moom <laughs> bu xasee am moom yu bëri dootoo ko lii ñaan ngeen nangu ba pare damaa gis tan rek xam naa ne bu ma affaire sonaloon ba léegi chaque jour nga ne ma naam daraame est-ce kon sax su boobaa dinaa am jëkkër <laughs> ndax tiitoon naa jaaxle woon naa jërëjëf yal na la suñu borom fay mais bu neexee yàlla bu ma ñëwee Dakar naa fi ñëw incha allah waa kay jërëjëf. jërëjëf Mame Rane euh, ci wàllu li nga laaj léegi muy wàllu traitement bi traitement bu général lañ la jox traitement bu complet la moom traitement bi du bàyyi dara daf la koy fajal ci gémmiñ gi fajal la ko ci put bi fajal fajal la ko ci amygdale fajal la ko ci rab ngelaw seytaane ci wàllu liggéey maanaam du ñu bàyyi dara traitement général la traitement complet la incha allahu rabbi contacter leen ñun daañ leen wax nu ñu koy fajee généralement dañ ciy def tawféex xéewal lañ ci def bi nga xamante ni forfaitaire am na livraison gratuite ndax du ñëpp a mën a ñëw ci ñun am ñoo xam te wax dëgg yàlla ay kilifa lañu wala seen tànk dafa diis mënuñoo ñëw fu ñu mën a nekk daañ leen fu mën a fekk livrer leen seen traitement ci sutura ñu emballé ko jox ko suñu chauffeur mu indil la ko ba sa kër ak foo mën a nekk ci Sénégal ci àddina mën nañ xefee ba nga jot ci incha allahu rabbi am ñoo xam ni nag mën nañu ñëw comme ñu nekk Dakar wala ñu jege ñooñu mën nañu ñëw def consultation ndax niñ leen koy defalee c'est un traitement forfaitaire ci biir forfait bi da ngay amaale consultation gratuite wala nga am livraison gratuite kon nag ñoo ngi ñaanal ñëpp jàmm ñoo ngi ñaanal képp ki nga xamante ni rek am nga feebar bi ñuy wax jéem ñu contacter ñu wax la forfait bi ñaata la bi nga xam ne di nga ci am consultation am ci livraison lépp nekk ci biir jox la traitement bi xam ni du bàyyi dara ñu bëri nag dañ koy faj ci gémmin bàyyi biir ñu bëri dañ koy faj ci ci put bàyyi nangam gis naa ci ñi xam te ni sax wekki nañu lu ëpp juróom-ñaari bëñ wala juróom-ñetti bëñ bu ñu dindi yaakaar ne xet bi la te fekk du ci bëñ yi ñenn ñi ci làmmiñ bi lañ koy yaakaar te fekk ni mën a nekk ci biir a biir a biir a waaw kon nag lu mu ci ti doon incha allahu rabbi danañ leen ci mën a jàppale defal leen ci consultation may leen ci garab jàppale leen ci ba loolu dañ ci kàttanu yàlla ak baaxam ak yërmandeem ak aminu Serigne Touba képp ki nga xamante ni rek euh, soxla woon nañu mën na woote ci numéro yi ci ban écran bi euh, incha allahu rabbi di 77 169 45 45 77 169 45 45. Douma me consulter Touba mais am nañ fa sama kër ngi Touba sama këru bop mi ngi Jannatu Mahwa ci wetu hôpitalu Matlaboul fawzeni danaka ñenti mbedd la ak fawzeni numéro Touba bi de 76 283 98 69 ñi dëkk Touba ak liko wër bo leen ñëwee Jannatu Mahwa danañ leen ci mëna dimbali bu baax rabbi même bu dé da nga nekk Touba consultation daañu leen ko mëna par téléphone Dakar dong laay defee consultation Touba nag ak yi ku ko soxla daañu la ko mën a livrer incha allah jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum Serigne Bara Fall man la Ibrahima Diallo euh, dëkk Guinée Conakry euh, wallahi sa garab yi ba ma ko jëlee ba léegi maa ngi sant yàlla mauvaise haleine bi euh, moo tax ba ma gisee si internet bi ma gis sama mbokk bu nekk Sénégal foofu. Ah, mo ma jox ko sa numéro ba mu koy ba ma ko yóbbante ba léegi ah, instant yi nii macha allah sant naa la gërëm naa la ah, bu baax a baax baax baax parce que mënu ma nekk ci nit ñi ay maxi rek laa doon sol aussi tamit sama biir da doon métti yooyu noonu mais sant naa la daal gërëm naa la maa ngi lay jaare xam naa ni sama mbokk Guinée yi nekk fii nii si Guinée dinaa lay yabal foofu ñëw foofu incha allah rabbi kontaan naa bu baax a baax salaamaaleykum.